ترجنا من نوره نيل ما نلنا من الوعي ترجنا من نوره نيل ما نلنا يلنت بياي سد ياي سد من علم وعرفان يننت بي يا صفوة الخلق ياي xayral bariyati yaay sagum arab ak orom yaa jiitu sudaani yaa jiitu yónneen yi yaa leen séddu lañu mës a am yaay seen wasilatu yaay seen xutubu diwaani yonent bi yaa tax malaaku sujudul aadu yaa ko xamal duryamu tuddee ba yaa def tardu seytaani yaa tax ba nuuxul labal noonam ya jël na ca des dabal ca gaalam ga iski yow ma tuufaani ibrahima bés bañ ko sànnee ci daal la xew ba ñuy wax ni yaa ko santaane yonent bu mu doon balaa dem déclaré sa mbir naanaani naanaani yaane ni dox la ñuy daane yonent bi yaay musle yaay rambu yaa xam yàlla yaa ñu ko wan dimb yaay tey di nandal ku la xam ku nekk ci kaw suuf yaa di xiin wa ko taw saxal ko meññal ko bam ñor neexmatal jaani mboolem la aljana lamboo ci teraanga yu rëy yaa tax ñu sàngu ko min rawqin wa rayxaani yeneen ti picc nekk malaayika yaa leen di saytu fu ñu mën a jëm yaa leen di ommati yonan mos di xaajaani yeneen ti bi yaa xam-xamu alluway maxfuudu yaa ko saraa yaay lambatu kun ci ay lamin yu kéemaane yeneen ti bi yaa yenki wal xalima ak burlaahu yaa ko xamaal mboolem la mi marke gi xam-xam yu baawaani firdawsi yaa fa ne mboolem bi bu yàlla saw tur la fay marke yow yaay sirru rahmaani yeneen ti bi yaay leeru cant bi yaay leeru cippi aras sunu xol yaa ko taal min nuuri imaani moo dondoon nam yi ci Hashim ak yi woon ci Qusay ak yi ci Abdul Muttalib mel ni xaayaadi moo dondu millata Ibrahima moo fa taxal nuurul hidaaya tabam daj kulla akwaan yi amatu ma zayaw wal daarat zawaya ho amatu ma zayaw ku ci gën a bëgg Sëñ Babacar الوجود رجب مجدي أعلاه مولاه خلفاني أحمد ما زايا سيخنا التجاني ما يبرم ولا قلبي لبيبان تنقصه أحمد ما زايا رسول الله هذا سيف رباكم أنت خير وجود الذي أعلاه مولاكم أي بلا قلوة بلا قلوة بلا قلوة أي وربا بلا قلوة أي وربا بلا قلوة سبا بلا خلوة دون أصحاب على ننقى أين أبو فيا يا لله من حاو أجبيرات الأولياء آل غازة تربية تنع المربي مريب الحق يرداكو أتى يسجد مريدين من هناك سنو وصول الله المراد الذي في قد كان مأواه ونال الخلافة يا يو يا يو يا يو نال الخلافة صف مبنى روي أجدف لني جبرقي نال الخلافة صف مبنى روي جبرقي نال الخلافة أبو عبد الذي دفلتني تقربينا للخلافة أنا وانت وان دفلتني تقربينا للخلافة صف سن بابا كرسي دفلتني ci góor gi na la la xilaafata ana waadi waawan jaayu leen ci góor gi na la la xilaafata ku ci gën a bëgg Pape Ndaro def leen nii ci góor gi na la la xilaafata soppi Pape Ndaro def leen nii ci góor gi na la la xilaafata ana waadi waawan jaayu leen ci góor gi na la la xilaafata ku ci gën a bëgg Khalifa def leen nii ci góor gi na la la خلافة wante damay laaj ana taalib saxiir mooy looy laajee looy laajee naa la la xilaafata. gën a bëgg xalifa. def leen gi. naa la la xilaafata. lay lay la la. xalifa mbay. naa la la xilaafata. waaye bay xalifa jar na ko. jërëjëf sëñ waaw ku sant ren. di nga sant ak néew jërëjëf sëñ Babacar waay sant leen la ilaha illallah jërëjëf sëñ Babacar yow sëriñ Babacar la ilaha illallah jërëjëf sëñ Babacar yow ki nga wóolu kam eh, la boole jërëjëf sëñ Babacar yow boo ko xeeb la ilaha illallah jërëjëf sëñ Babacar yow as nga wóolu من على الخلافات قد زاءت وراثته وأتاه ختم من الرحمن والجاب أترج ورداء الأسباب لا تجر بذا أبدا إن المناهل جميع المسايا أتلازم صوبة أتكتفني سمبي سآجدي فجلازم صوبة أنا قاتك صوت تالي بشيخ لونجد يلا منانكو dunya wa ukhra taalibe Seex lu mu ñaan yàlla mu nangoo fi dunya wa ukhra boo sëddee loo ñaan yàlla mu nangoo fi dunya wa ukhra ajja wa aliya wa ala ashaabil fudala ahli nuha والوالد والكل يمسى بارك الله ñoo ngi jégalu ñëpp nag ci guddal gi